Bonjour. Très heureux ba mu bàyyee jam ñaajo ci ndaje mi yoon ak yoonal njiit réew mi président Bassirou Diomaye Faye fekk ay xale yu ñëw ngir visiter palais de la république di makkaanu njiitu réew bi mu fekk ci leen ci cour bi di saafonteeg ñoom mu doon mbégte ci élèves yi bàyyee ko Thiès ci institut préscolaire les papillons blancs ni ko Mohamed Sarr di président gouvernement scolaire bi fësale jiitu réew mi président Bassirou Diomaye Faye di feddali taxawaayam ci yoriñ bu sel bi war a tax ba génération yii di ñëw fekk réew mi ci yoon bu mucc ayib xale yi de ndeysaan boo leen gisee da ngay mbégte rek la ñu lay andil ndax c'est de ay c'est des êtres purs ay nit ñu sell lañu euh, mbaax rek moo nekk ci ñoom ak insouciance waaye seen insouciance moo ñu war a renforcer suñu conscience ci li ñu war a joxe ëllëg ci li ñu leen war a waajal ci ni ñu war a fekki ñu war a fekkee Sénégal ñoom bu ñu demee ba màgg ba am lu leen war ci ñoom seen bopp ci seen njaboot ak ci Sénégal lañ lañ fiy fekk ñu waajal leen ak même ñii ñëw ci gannaaw ñoom euh, dialogue tey ci esprit boobu rek lañ ko defee maanaam am na lu ñu fi fekk balaa ñuy ñëw am na lu ñu fi xew naka la ñuy def ba lu ñuy wax plus jamais ça ñu liggéey lu tax plus jamais loolu mënul tee mën a nekk même bu nit ñëwoon sax ànd ak yéene yooyu mu fekk ni mu fekk fi loo xamante ne en fait du tax mu mën ko def donc euh, lii nag da ciy baax souvent ñu leen di fiy gis di fàttaliku ko ne euh, xëy na kenn ngi ci ñoom war a nekk président xëy kenn ngi ci ñoom wala ñenn ngi ci ñoom war a nekk ay ministre mais dans tous les cas certitude bu ñu am mooy ay futurs serviteurs Sénégal la ñu servir ko dans le privé wala ñu servir ko ci dans le publique c'est des serviteurs mais yàlla na bu ñu demee ba nekk fu ñuy servir Sénégal fekk ñun ñi nga xamante ne ñoo fi toog ak ñi ñëw ci suñu gannaaw waajal leen lu leen yombalal lu bëri loo xamante ne xëy na ñun fekk nañ ko ci jafe-jafe wala ñeneen fekk ko ci jafe-jafe. mu doon wareef ci njiitu réew mi te war a doon royukaay ci tuut tànk yi ngir wéya yoon wi